li senegal am ci ay gox-goxaat muy juróomi téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñaar bu ci ne am na bàjjan bu ko jiite bàjjan boobu nag mooy ànd ak ay bàjjanam sukkandiku ci kër docteur ci liñ leen jàngal ni ñuy raxasee ndox dinañu liggéey it ak ñi nga xam ne ñoo jiite préfecture yi. mbir boo xamul fu muy jóge li ci ëpp solo mooy set ci sa jëmm set ci ci lëwër surtout nag loxo te bàyyi nuyoo bi bàyyi lépp luy dajale loo xam ne rek nit war na caa mën a jëlee leneen. ñun ni loolu mooy suñu taxawaay waa ministère de la santé defal ñu ay formation ngir ñu xam ni ñuy raxasee loxo ak li ñuy wax ak nit ñi ci li ñu naam ku nekk li nga nàmp rek nga dem ci ñu daal ci loolu lañ taxaw bu neexee yàlla gox goxaat yëpp dinañu am ay jumtuwaay dina dinañu am formation comme ni ñuy paan yi ànd ak satala ak alcogel yi ak saabu waaw ndax saabu ordinaire bi dara gënu ko ci te am na dëkk yoo xam ne pour am benn saabu problème la loolu yi waxtaan nañ ci ba allah ministre bi dinañ ci kiyal daal defal bu ko defee nag ñu wàcc sur le terrain dans tout l'étendue du Sénégal wax ak sunu mbokk yi ndax jigéen moo yore kër moo yore doom moo yore màgget moo yore borom këram te yokkute ak xeex mënul am sans loxo jigéen dugg ci. du nu àndandoo jël nañu ay mesures. man daal li may gën a ñaax mooy set gi ndax set gi dañ ko war a nekk moom ba ñuy làqu néeg yi set salle de bain yi set wanag yi set li wër kër yi set. xale yi ku ci dem na raxasu buy dugg ci kër gi raxasu te xamit ne booy sëqat nga jël mouchoir teg ci sa gémmiñ su fekkee amuloo ko nga ne nii sa loxo nit ñu ko jàngale di raxasu ba set daal nañuy raxasu loxo yi bàyyi nuyoo yi bàyyi rassemblement yi dëj yi ngénte yi takk yi ndaxte nag mbooloo bu ca lenn euh, tase day tax affaire bi gën a kii te danoo bëgg mu yem fi